لي خادم بان وما ليس بين علمني ما كان قبل الخلق من كان لي بكرم وتلق لم ينساتي جالب النيران أو جالب العارين في الخسران لم ينحني درو نار الدنيا واقتسني الباخي بخير سنيا ملكني ما لم يبه عني وخاد لي بقاو بالمن كرامتي كتاب من رب بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ci ndigalul alxalifatul aam li tarixatil muridiya al cheikh Mouhamadul Muntaqa ibnu cheikh Mouhamadul Bachir ayyadahu llahu wa nasara wa ataala baqaahu ci ndigalam ak ci kilifte fi ay jëwriñam sëriñ Ahmadul Moxtaar mi nga xam ne moo nekk ci bopp njabootu Daaru Xuddus di xalifab Cheikh Mamadul Moustapha waaye itam ak jëwriñam sëriñ Cheikh Mbacke Madina mi nga xam ne mooy xalifab sëriñ Mbacke Madina tey jëwriñi daari xudus gépp waaye ci ndigal ak kilifteefu sëriñ Moustapha Mbacke moom sëriñ Cheikh Mati lay Mbacke mi nga xam ne mooy xalifa Cheikh Mamadul Amin sëriñ Abdourahman Mbakke moom sëriñ Cheikh Gaynde Fatma mi jiite jataay bi nekk ci bopp njabootuk sëriñ Cheikh Amadou Mbakke Gaynde Fatma ñuy ñaan sun borom yàggal leen fii wéral leen ba li ñu yéene liggéey ci toolub lislaam bi sunu borom may leen kàttan guñ ko liggéeyee te ñu ànd ko ak ñoom waaye ci njiitul sëriñ Moustapha Mbakke moom soxna Astu Buri Mbàkke mi nga xam ne moo jiite fédération bii nga xam ne moo tudd ittihaadu atbaayil xadim li taawuni wa tamasuk bi diineel qawim muy fédération des groupement religieux et culturels des disciples de Cheikh Ahmadou Bamba te wilaaya nekk ci biir ànd ko ak ay rakkam yépp ak ay doomam ñu man cee tudd ci jataay bi sëriñ Omar Mbacke mi ngi nii toog ci wetu sëriñ bi waaye sëriñ Ousmane Mbacke moom sëriñ Cheikh Amadou Mbacke Gaynde Fatma ak sëriñ Assane Mbacke moom sëriñ Cheikh Amadou Mbacke Gaynde Fatma ñoom ñu ngi nii ci jataay bi waaye itam rekki sëriñ bi ni nga xamee ne lislaam ak murit ak taalube góor ñi walla sëriñ si rekk yoruñu ko waaye soxna yi itam. dafa am lu am solo lu ñu ciy def lu luñ ci yore ba moo tax soxna Xadi Mbàkke moom sëriñ Dan Xari Lo soxna Daba Mbàkke moom sëriñ Cheikh Abdou Mbàkke Gaynde Fatma ñu ngi ci jataay bi ànd ak jëwriñ yi nga xam ne ñoo jiite wilaaya femme yépp ci njiital soxna Ndey ma Mbàkke mi nga xam ne moo nekk ci seen kanam ak soxna Faati Xari Lo sëriñ bi ñee ca Majmahun Nurayni bu kër Serigne Cheikh Aliou Mbacké muy daayirey kër gi di ma di ñi nga xam ne ñoo bootu ñoom ñëpp ci gannaaw Serigne Ousmane Mbacké mi nga xam ne moo jiitee diwaanul muridin mi nga xam ne moo lëkkale mboolem daayira yi nga xam ne moo aju ci kër Cheikh Mamadou Moustapha Islaahu Daarayni Serigne Cheikh Lo daayira ngi nii ànd ak mbooloo bari ci suba teel lañ fi ñëw booba léegi ñu ngi fi waaye Serigne Cheikh Mbacké Madina mi nga xam ne mooy jëwriñu kër gi itam yable na fi ndax yabal na sëñ Moustapha moom sëñ Mbàkke Madina sëriñ Cheikh ngay itam léegi la fi jóge waaye teewul daayira Islaahu daari ni ñu fi ànd ak ñoom ànd ak ñun ba nga xamee ne tàmbali nañ liggéey bi ba léegi tey si Roissir kër sëriñ Xaadim Modou Baara fédération Safinatul Amaan waa kër sëriñ Xaadim Mbàkke Mohamed sëriñ Xaadim Naar Nuuru Daari ni kër sëriñ Abdou Aziz Baara waa kër sëriñ Ibrahima Satou section yi nag Taïf Mbakke Touba Diourbel Kaolack Thiès Kébémer Ngaay Louga Banjul Mbuur section yëpp teew nañ waa kër sëriñ Abdourahman bu Daarul Mooti ci njiitul sëriñ Xaadim Sarr sëriñ Abdourahman moom sëriñ Abdou Khoudous moom Daarul Mooti moom bis bi suñ ko yéex a jàpp sax moom mu woote di laaj bis bi kañ la ndax bëgg rek mu ñëw ba mu joxe ndigal li aju ci moom lépp ñu jàng ay kaamil ak alquran sëriñ Abdou Dieng bu Jurbel rabitatul marasir quraniya sëriñ abo soppee sëriñ bu ñoom it ñu ngi fii ak sunu mbokk yi nga xam ne noonu ñoom ñoo bokk liggéey bi muy waa daayira muxadimatul xidma sëriñ bi kaamil ak ñaari téeméer ak fukk ak ñeent ak seegun na ci nun ñetti junniy kaamil ak ñaari téeméer ak fukk ak ñeent ci kaamil xasida yi jàng nañ juróom-ñaar fukki junniy xasida ak juróomi jun juróom-benn junniy xasida ak ñeenti téeméeri xasida ak ñaar fukki xasida jàng nañ ko ci ci li ak seegoon ci noonu askar yi moo xam tur yàlla la wala astaghfirullah la wala basmala wala leneen lu man doon teñ tudde ko wala salaatu ala nabi jàng nañ ci fanweeri million ak juróom ak juróom-benn téeméeri junni ak juróom-ñaar fukki junni ak ñaari junni ak ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak benn sëriñ Ndiaye Nguerane mu ñëw ndax itam Euh, waxtu wi mu ngi sori kon sëñ Ahmadou bismillah xadimihi zawi ridwani wa tamkin mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu te di leen ziar ci turu kilifa ak jataay bi di sëriñ Abdourahman Mbacke Gaynde Fatma di jiital ci nuyo bi nag kilifa ak yoon wi Cheikh Mouhamadul Mountakha di ñaan suñu boroom dolli ko dëgëral te may ko wér ak kàttan ba li mu yéenee liggéeyal Sëñ Tuubaa mu def ci lu kawe njortam di nuyu bu baax jawriñ yi kër gi di sëriñ Ahmadul Muxtaar mi nekk ci bopp njabootu ak Cheikh Mouhamadul Moustapha yal na suñu borom wan kiimaanu gudd fan ci jëmmam di nuyu bu baax jawriñu kër gi di sëriñ Cheikh Mbacké Madina di nuyu président fédération bi di sëriñ Moustapha Gaynde Fatma di ziar bu baax sëriñ Moustapha Mbacke moom sëriñ Sidil Muxtaar njabootuk Cheikh Mouhamadul Lamine ndax du yaari kër genn kër rekk la sëriñ Ahmadul Muxtaar mooy borom kër gi kon noo ngi nuyu ñëpp di ziare ñëpp di ziar bu baax a baax njaboot gi ci sunu gannaaw ñu ngi siyaar Serigne Cheikh Mbacke Ngaya nga fi teewal Serigne Cheikh Mbacke Madina ànd ak njaboot gi di ziar bu baax fédération Cheikh Mouhamadou Lamine Baara ñoom ñëpp fii lañ yendu ànd ak ñun liggéey bi noo ngi leen di nuyu te di leen ziar kenn ku ne ab ziar bu méngoo ak wàccuwaay bi la suñ borom jox di sant bu baax a baax mbooloo mi ci seen teewaay di leen massawu itam ci coono yi xam nañ ni jot amut xam nañ itam ni yitte yi bari na waaye xam nañ fu leen bis bi toll ba bu jotee kenn ku nekk la nga amoon ci ay yitte da ko dagg ñëw taxawee bis bi ba mu mat nga doon a dellu ci yitte yi yàlla mi tax ngeen di ko def yàlla na leen ci fàggul lu kawe seen jot barakat Cheikhul Khadim noo ngi leen di ma saw bu baax a baax di sant mboolem kuréeli daayira yi fi sëriñ Basiiru ñaan doon tudd yëpp ñu ngi leen di sant ci turu sëriñ Cheikh Diop mi nga xamante ne ni moo jiite liggéey bi mu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp bis bi nag bés la boo xamante ni nii yàgg nañ ko taxawal lu jiitu ci ay daayira lañ ko daan amal dayre bu ci nekk di ko amal ca gox ba mu nekk ginnaaw bi lañ door a am xalaat ci 2008 boole ko mu doon benn loolu itam gis-gis bi ñu ci am ak yëg-yëg bi ñu ci am mooy danoo àndoon ak i nit ci biir liggéey bi yàlla dogal ñu wuy ji seen borom nu gis ni ki nu doon boole lim nu waxoon mooy dama bëgg ngeen ànd di jariñu di jariñant kon ñi dem ba léegi seen wàll mi ngi ci liggéey bi ndax noo leen féete gannaaw war leen a taxaw ñi fi nekk itam li nu war ci suñu duggante mooy nu taxawante tey jàppalante loolu taxoon bi ñu daje nag ñu ni kon nañ taxawal benn bis boo xamante ne nii dañ ci ñaanal bokk yi nga xamante ne nii dañoo dëdd ginnaaw nag boo xamante ne ki yàlla yónni ci ñun nee na nit bu faatoo jëfam yépp dagg na ba mu des ñett te nu gis ni doomu aadama itam li muy sax ci àdduna daa yàggul te suñ borom tam li wax du dañ mooy kenn ku ne la nga jëf doo nga am loolu nag tax ñu gis ni kon nit ñaari néew doole ñoo ko seq man gi lu tuuti la te lim fi yàgg bëriwul te fa mu jëm amutub ab kon mat naa may loxo mat naa jaydi bu baax a baax ñu xam ne itam ne ab jullit wërta ngoot yéenam wërta xat ndax kii maye ni mu toll lay joxe ñu ni kon nañ fas ba suñ borom tàmbalee bind ña ko gëmoon tënku ci ay ndigalam ba adduna di yam suñ borom jéggal ñëpp ña jiitu ak ñun ñii fi des ak ñii ñëwaat ci sunu kanam ñooñu ñëpp lañu ñaanal yërmaande yi sunu borom ak njëggalam ñii fi des itam sunu borom bañati leen a topp dara loolu nag danoo def tawasul ci sëñ tuba ndax moo wax ni du'a man bi atawassala mujab li yu lasi yusaxsihul hijab ku ñaan te def tawasul ci man suñu borom dana nangu ñaan nu defe ko Touba itam sëñ Touba moo ni woon def lu baax fépp lu baaxee waaye Touba la gën a sakkane yàlla def itam ñu dëkk Daaru Xuddus kër gi di kër yàlla mu ni Daaru Xuddus li rabbil alamina mursilu ahmada kon dajale gi ñu dajale nit ñi itam bañoon na bàyyi kenn fu ci nekk mu di ko defe fa mu nekk mooy danoo xam ni suñ borom mi ngi dégg ñëpp waaye dégluwul ñëpp yàlla mi ngi gis ñëpp waaye xoolul ñëpp ñu jàpp ne nag buñ dajale dana am ci biir ñoo xamante ne nii buñ ne allahuma suñu borom dana nangu seen ñaan loolu moo tax nu taxawal bis bi te sëñ Tuubaa daf na waxoon ni na ngeen dëkk ci wax yàlla ana nga mag ñu ni ko nuñ koy waxee ana nga mu ni da ngeen di sax ci lim leen digal su ngeen ne ko ana nga dana leen wax maa ngi nii ñu ni ko nu muy waxee maa ngi nii mu ni soxla su am mu fajal leen te nun suñu yitte jan rekk la muy yitte ci sëñ Tuubaa am ba ni irham jami al wara loola rek mooy suñu yitte góor góor gépp lépp foofu lañ ko jëmee ndax sëñ Tuubaa daa wax ni lépp loo xam ne ab saay-saay mën na koo am am ko du ngóora teb saay-saay ngërëmal yàlla dong nga ko të moom la mënta am nun nag ngërëm loolee lan soxla doxañ ci sunu biir lépp kon bis bi loolu yi rek moo taxoon ñu taxawal ko ngir yërmande ju ñu ëmbal bindeef yi te bëgg leen a wóotu seen gannaaw wóotu leen ci seenu njaboot ba keroog ñu leen di fekk lii rek moo tax wilaya bu Touba di organiser bés bi di ko ànd ak mboolem membre fédération bi di ko ànd ak mboolem jullit ñëpp bés la boo xamante ni daal yëg-yëg ñu ci am mooy bu dikkatee àdduna bépp yëg ni tey jii la ñaanu booy daw lii képp koo xamante ne nii bépp araf boo xam ne boo ko yëkkatee da nga ca yaakaar yërmande yàlla nga ñaan araf woowee te ñaan suñu borom def ko ci seen téereb jëf ndax foofee ñu soxla nañ ko te yàlla li wax du ci dañ danaa ci wax rek ngir ñu bàyyi ci tuuti xel jamono yi fi Sëñ Tuubaa di nekk ci kër gu mag daa am xew-xew bu fa xew tubaab yi ñëw raafal ci biir kër ga 70 personnes yóbbu leen prison am na ñoo xam ne fitnaan nañ leen ba ñu xëm ba xew-xew ba jàllee sëñ bi woote wax leen ni leen nit jàppoon ngeen ni tubaab yi ñoo dugg sama kër di fi def lu mel nii ñëpp ni ah waaw waaw loolu de jàppoon nañ ko sëriñ bi ne leen nag sàkkantuma ak yàlla mi bind moo tax yàlla mat naa bàyyi xel bu baax a baax sàkkantuma ak yàlla mi bind ndegam doomu aadama moo sañ a dugg ci biir kër ga jàpp fa añ nit fit naan leen sàkkantuma ak yàlla mi bind moo tax nu bëgg dellu ci jaamu yàlla te teg ko ci sunna te mooy tonte ci sunu biir te boole sunu bopp sa yëpp du ñoo ngi lay ñaanal bu baax a baax yal na la yàlla taxaw yal na yàlla sàmm ba nga àggale yéene yi mag ñi li waajur wi doon nas muy yërmaande jum àndam bindee fi yàlla na ko gunge ba yërmaande joojee kenn ku nekk teg ci sa loxo wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu